et sur le cas France 24. non mais attends mais ça c'est du c'est du colonialisme c'est du truc de euh, gis nga euh, may mais. tubaab colonialisme que vous avez nourri. balaa ngeen di kontaan oh, presse bi di xaar. Euh, ma di di xaar. le porte-parole du gouvernement va s'afficher sur France 24 sur TV5 alors que les médias nationaux ñu ngi leen di laaj. na nous dites pas aujourd'hui que c'est du colonialisme. mais attends, vous êtes bien content attends, de parler non, sur France 24 non man dëgguma explique dama soo ma bàyyi rek may ma yeggale. xam nga lan moo bon maas noonu tubaab bi am na ñu ñu respecté am na ñu ñu naw mais am na ñoo xam ne respecté wuñu ils de haut comme toujours des sujets ñoom mën nañ toog mais France li mu tàkk yow xam nga dee ko woon France ah man maa ngi demoon ànd ak président ci sommet boobu. mais li samay pare li may gaawantu mooy buub samay bagage daw heureusement France bi mu tàkkee ñoom seen dëkk ma ngay tàkk ñu dem wax foofu ñu ñëw fii et puis ce qui est intolérable mais mais le monde est ouvert Sénégal c'est pas une république donc américain bi espagnol bi français bi mën na ci critiquer mën na ci wax mais dafa am critique yoo xam ne soo koy dégg dafa mel ni nous sommes nous sommes en perte te waxuma ko parce que je suis dama ko wax en tant que sénégalais comme en territoire conquis ñëw ki ñu doon des après et puis c'est pas du factuel c'est pas du factuel c'est des commentaires c'est-à-dire ils veulent nous apprendre la démocratie ils nous veulent nous apprendre c'est-à-dire la démocratie chez certains hommes de média français c'est les orientations des tubaab de Paris de du ma ni du ma yam sax ci Paris Paris c'est français des tubaab laa la wax ça c'est inacceptable et on peut pas l'accepter France 24 mais mais France 24 xam nga lan nga ci mënoon wax muy guléet mais si lañ dëkk ce que je peux dire nag loolu ça m'engage man personnellement je vais oser le dire ça mangage je pense que on a trop laissé faire dañoo leen tàmmal yenn yi voilà mais l'argument solon lequel un une personnalité politique un homme aussi important que Macky Sall dafa ignorer la presse nationale c'est totalement faux parce que président Macky Sall fii Sénégal kese la journaliste yi defal un face à face dans un hôtel de la place ñu toog le président face. <laughs> au journaliste bàyyi ma yeggal non bàyyi du exception non dama leen non damay lim. <laughs> xam nga euh, kii may mun a damay lim président tollamtiwaat na ko. Kaffrine xaw ma eh, mais bàyyi ma yeggale. mais bàyyi ma yeggale président jox na fi interview. 4 à 5 médias internationaux contre une un entretien pour Assane Gueye. président wax na fi l'Express wax na fi ci Monde wax na fi France 24 wax na fi RFI. tout ça ce sont des médias français. bàyyi bàyyi ma yeggale bàyyi ma contre benn interview bu mu accordé El Hadj Assane ce n'est pas normal. Ousmane Sonko jox na fi Ousmane Sonko France sol ko costume bu rafet watu ba rafet toog il se soumet à leurs questions amul censure amul entrave may may soo Abdou Karim Fafana depuis quelque xaw ma ñaata weer mhm. ñu ngi koy wut pour interview Ka Karim il a fait trois fois ces médias mhm. là pendant temps la presse nationale est là soo ma bàyyee ma ma soo ma xam nga dama doon def argument man la président Macky au moins essayé na def na mais je pense que li ëpp solo may mooy il faut que tamit benn affaire et ça je en tant que membre de la famille il faut que journaliste ak politique pour ne pas dire politicien qu'on refonde xoolal nos relations may mun a tey euh, Ousmane Sonko commencé woon nañ ko fi jiiñ su waxee ci benn média tous les autres sa waa pour pourquoi mooy wax ak kii pour pourquoi waxalum ñun cet esprit la moo war a dañ sa mettrait à l'aise des politiques parce que au nom de mais fii nañu waxante dëgg aussi nañu wax li ci suuf fii tey soo fi ñëwoon jox exclusivité may mën a nduur ah naataangoo mi tiire pour pourquoi may mën a nduur et pas nous cet esprit là ça n'existe pas ñu baal ma chez chez les chez, chez nos autres confrères de de, de là fii président Macky Sall su tànnoon jël par exemple je donne une interview à Libération waaw oh, c'est normal Libération c'est son poulain. non je suis ma yeggale. su ñëwee ci Maïmouna joxe interview ñu ne Maïmouna corrompre nañ ko ah kii cinquante million wala cent millions. lañ ko jox su demee ci euh, Youssou nduur TFM euh, Observateur ñu ni gaal gi dërëm bi génnul gaal gi Youssou yi ci moom su demoon tey Walf yi ñu ne eh avant interview bi di am lu mu gisante kii euh, PDG Walf. lan lan lañ ji su demee si El Hadj Ndiaye ñu ne ah ça affaire de tukulóor ay na du ko bandum donc voilà ce qu'on se dit entre nous